Ah, ak ak ah, suñu doom <laughs> ami allahuma ami ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf ndax léegi lañ am ñu doy waar ñu woote te gis naa ni ngeen di fënatalee di jëndale dëgg la dëgg la donc yàlla na ngeen jëm kanam amin amin yaa rabbal alamin jërëjëf yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla fayal ñu leen ndeysaan ndeysaan waaw soo déggoon ñaari baar rek lay jox jox nga jox caat xam nga eh, ki wax sàng ki génn léegi mm. ba fàttali sama sangu baax ba ca Touba Belal. alaaji xaaral ñu jël euh, Sayer sekk waaw mooy ah. association ah, hémodialyse yi moo nekk en ligne ñoom ñoo demoon ci Ava Maricol sekk ñoom la ñu wane woon ci journal télévisé jéego yu ñu def ba ñu am gratuité bi ñoom moom moo nekk ci ligne bi allo. allo. waaw euh, Sayer. oui. Seck Seck Seck Seck. ñu ngi ñu ngi nangu ziar. man nag duma la santale Diallo mais Babou laa lay sant. waa Babou may sa. waaw parce que tey wuloo waaye daga tey macha allah. alhamdulilah alhamdulilah di ziar Zeyna. ndeysaan ñu ngi delloo daal di nag euh, mu jël ci suñu tonton Ndiaye. wallaay wallaay jërëjëf di leen gërëm di leen sant. jërëjëf Seck. di leen ñaanal nag képp koo xamante ni ci kër gi lay liggéey. Mm-hmm. lu ko dalee ci ku fa gën a suuf see emploi ba ca ka ca kaw. Mm-hmm. borom kër gi. ndeysaan. wax dëgg yàlla émission bi ñu ngi ci am bëtte lool. dëgg la. waaye di ngeen ma baal nag balaa may tàmbali. Mm-hmm. ma am lu tubaab di wax euh, une pensée pieuse. Mm-hmm. Euh, jëmale ko ci ñi nga xamante ni yëpp feebaru roñoo daf leen faagaagal. te fekkewuñu lii. te fekkewuñu lii. dëgg la ñaan yàlla euh, yóbbu leen àjjana. amiin yaa rabbal aalamiin. te nag ci peñe yooyu wax dëgg yàlla di ngeen ma baal ma tudd ci ñaar. Mm-hmm. ñoo xamante ni seen adduna yëpp dañ doon xeex pour gratuité bi am ci Jalil mm-hmm. te yàlla dogalul ñoom ñu fekke ko mm-hmm. te ñoom bañ koy xeex amoon nañu mën-mën pour faj seen bopp sans dépendre ci kenn waaye nag ñeneen ñi ñoo leen taxoon jóg ndeysaan waaw mu di Saliou Fall tey Saliou Fall ak euh, Pape Ibrahima Diaw tey wax dëgg yàlla yàlla leen yàlla yërëm amiin amiin yaa rabbal voilà ndax seen xeexu tey moom euh, yàlla sotal na ko tudd nga ñu baax wallaay wallaay. du ñu baax di leen wax ni nag euh, gratuité bi. Hmm. dañ ci am mbégte. ndeysaan mbégte bu yaatoo yaatu. di ko bokk ak Sénégal yëpp nag. ndeysaan di remercier euh, remerciement yi nag day commencé. ci hmm. gouvernement bu fi jóge hmm. ndaxte ñoom jotoon nañu def jéego. ba jëlee fi woon caution cinq cent mille yi fi amoon. indi jalis bi dix mille francs. ñii nag gàcce ngalaama ñoom. Mhm. ndaxte bu ñu ñëwee toog gis askan wi yëpp di jooy. Mhm. dañu teel a jóg rek daal di éradiquer mbir mi. Mhm. te seede yi ngeen seede nag ci professeur Eva Marie Coll. di ministre de la santé. ñun dinañ ko dëggal. ndaxte dëggal boobu mooy. du ne insuffisance rénale rek a ko tax a jóg. ndaxte ci waxtaan yi ñuy waxtaan ci affaire insuffisance rénale sax. am na yeneen mëbët pour saafara yeneen jàngoro yi. macha allah. te di la xamal ni yàgg na ci action sociale. Mhm. te lii du ngistal ndaxte en 1978. Mhm. ca centre social bu Fass Delorme. Mhm. daal na fa ñëw di def ay vacation di faj nit ñi. te boobu temps ca daaw ko fay dara. dégg nga daf ko doon def fii sabililaay. saa yooyu journée médicale yi commencé gul. yéen nag presse bi aussi dinañ mm. leen euh, beral mention spéciale. dëgg la. waaw di leen mention spéciale parce que gis ngeen ni ngeen ci yëngoo ak ni ngeen ci waxee. dëgg la Seck ba. autorités yi tamit dégg leen ngeen euh, yéege suñu plaidoyer foo xamante ni sax njoxtu weesu woon na ko. dëgg la sekk. Euh, léegi nag li ñu leen di xamal daal mooy gratuité ndaam am na. Mhm. Euh, xëy na Dakar. ca Dantec lañ koy defee. Mhm. waaye fàtte nga centre Saint-Louis bi. centre bu Saint-Louis. waaw centre Saint-Louis. donc Saint-Louis am na benn centre. waaw foofu tamit euh, incha allah kenn du fa fay dara. gratuité bi aussi bien hôpital Dantec que Saint-Louis. waaw que Saint-Louis. Mhm. Euh, Tamba bu soobee yàlla dina ubbi taa yi. alhamdulilah. Euh, léegi nag xanaa li ci des rek mooy comme ni nga ko waxee. Mhm. il faut que ngeen baal ma ci waxee mu di xeex bi ci des. mooy yeneen centre régional yëpp. capital régional yëpp ñu mm. bi fa centre mm-hmm. ndaxte lu ko mooy li ñu daloon ca wàññi jalis ba moo ñuy dal mm-hmm. dina am ñu bëri ñu bëgg faju te duñu mun am fu ñu fajoo mm-hmm. ndaxte avant que lii di am mm. am na benn malade bu jógee Touba mm. euh, bu mu jógee Touba ñëw xaar ci liste bi amul mbokk seen amul mbokk Ndakaaru le temps ñu koy jël guddi guñ koy delloo ca yoon ba la yàlla def lu ko sopp ñu woo ma téléphone ni ma ah malade bi ñu woon na dellu si fi ak ñaari fankat yàlla moom la ko kon bokk il faut que ñu yaatal centre yi mhm. di ñaan tamit gouvernement bi mm. ndaxte wàññi jalis rek du loolu moom mooy lu luy régler mbir mi mhm. ndaxte garab yi nga xamante ni moom la ñuy ñaan jalis di jëfandikoo tamit mm. euh, doon na ay garab yu cher dëgg la kon boog nañu xalaat ci wàññi njëgu médicament yi nga xamante ni mooy accompagner ñi nga xamante ñoom ñooy def jalis mm. euh, di ñaax tamit ñi nga xamante ni ñoo am ay mbokk yu am feebar bi mm. ah bu ñu dégg gratuité rek kek nekk la nga daan dimbalee sa ñoñ nga ni ah dama koy téye dëgg na dëgg nañ ko soxla maanaam waa famille yi analyse yi ñuy def. Mm. ak garab yi ñuy jënd. Mm. ku ci amoon malade di ko dimbali tamit. Mm. ah continuer di ko dimbali te yàlla tax. ndax analyse yi ak garab yi ngay jënd. <laughs> voilà c'est di ko. jalis bi moo cher waaye analyse yi ak garab yi ba léegi mu ngi fi. waaw ba léegi ñu ngi fi. dëgg la kon bokk ci amoon mbokk ma ngay dimbali. ah bul ni kat gratuité am na damay téye sama loxo. dëgg la. waaw te di leen xamal tamit ni comme ni ñu koy waxee Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. dëgg la Seck ndaxte même association sénégalaise des hémodialysés insuffisants rénaux ñu kon ko xam ci ACHIR. Mm. am na ay antenne Paris. Mm-hmm. waaw barki Dembo Ndiaye la ñu antenne Paris yónnee deux cent mille. ndeysaan bon États-Unis ak Italie tamit ñu ngi yëngu. Mm-hmm. pour mun a wax tamit parce que li tax ko wax loolu. dañ mm. Dieye boobu wax sànq. Mm. dafa wax wax ju am solo. professeur Dieye. déedéet waxuma professeur géey sax. waaw euh, ki doon wax ci affaire religieux yi. waaw waaw waaw waaw kilifa diine yi. géey géey Guèye. waaw Guèye moom laa wax. Ah. Uh-huh. waaw parce que ñun Achir dañu sub dara te ñu kilifa diine yi. Mm-hmm. waaw parce que même euh, collecte boobu ñu doon def. Mm. pour jàppale insuffisants rénaux yi. Mm-hmm. dañu dem ci kilifa diine bu nekk dem nañu Touba dem nañu Tivaouane. Mm. dem nañu ci cardinal bi. Hmm. dem nañu ba ci protestant yi bépp kilifa diine daal seeti nañu la. pour sensibiliser la. dëgg la bu ñu fàtte it prévention bi. dëgg la waaw prévention bi tamit am na solo. dëgg la waaw loolu daal euh, mooy yi nga xamante ni newoon nañu dinañ ko leeral. dëgg la te douze mille malaat yooyu ngeen di wax. dëgg la naam am na. Hmm. waaye daanaka trois cent rek. mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo am fi mu nekk ni possibilité. Hmm. pour ñu war leen mun dialyser. maanaam fukki junneeg ñaar yi. ñetti téeméer rek am possibilité pour faju waaw mais ñetti téeméer yooyu sax ñoom ñëpp amaguñu poste parce que ñi ngi ci liste d'attente bi. ñetti téeméer yooyu yëpp li te li tax ci e, fukki junneeg ñaar yi ñetti téeméer kese am ci possibilité pour faju mooy e, centre yi moo doyul. waaw justement mooy centre yi moo doyul. Mm. kon nag loolu moom mooy beneen jéego bi nga xamante ni. loolu moom allah ji euh, yéeme na. voilà voilà te di leen xamal ni rek ministère de la santé tamit neexul ba neexul. Mm. mais ñu ngi liggéey en collaboration ak euh, Achir. Mm. ndaxte duñu def dara duñu mébét dara te woowuñu ñu ñu toogandoo nasandoo ko. waaw ndaxte nag koy dimbali. waaw woo ko ni ko kaay lii laa la bëgg dimbalee. waaw seetal ndax dina la arrangé wala fan nga foog ni war nañ ko seetaat. waa dernière question Sayer opération yi nag lu ci seen xalaat. ah jërëjëf. waaw foofu laa doon daaneele waaw ndaxte d'abord bu ñu félicité ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal ñu nar a toog ci suñu parlement bi muy député yi waaw ñu ngi leen di ñaax te di leen ñaan. Hmm. mbirum plantation boobu. waa bu ñu toogee ba ñu yóbbul leen loi bi. waaw ah président de la république nu mu gaawee saafara euh, def gratuité bi. waaw ñoom nañu gaaw pour voter loi boobu pour ñu mun a commencer transplantation yi. kon daal loi bee des. waaw loi bi nag moo des. dëgg la kon loolu ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni incha allah ñooy toog ci parlement bi. jërëjëf Seck di remercier ak di leen féliciter waat yéen association Agir boobu. di ñaan suñu borom bi rek ñu yeggaleeg suñu sago waxtu wi dab nañu mais lii daanaka sant yàlla. sant la te day dalal xel bu mm, baax. Mm. xam nga moom ni muy waxee. Mm. dafa dafa feebar. dafa feebar malaat la doo ko sax doo ko sax malaat la ndax ñi ngi jéem a def ay jéego. pour améliorer seen situation ak situation wu bépp malaat. société bi yëpp nag war fee war see impliqué wu lii nag tata dégg day dalal xel bu baax a baax. waaye say douze mille trois kese mën ci ah, faju. waaw mënul nekk sax. Ah, ak fukki junneeg ñaar ñetti téeméer kese mën ci faju. gratuité bi duñ ko mën a def def def. laaj fukki junneeg ñaar ñetti téeméer tuuti na de. torop ah, matul sax genn wàllu judd ni mooy mooy tata dëggeen li ma la doon wax sànq rek hmm. gratuité bi bu ñu ko waxee tamit te ñëpp bàbbeeku ñëw Dakar hmm. ñëpp mënuñu fajoo Dakar hmm. ñëpp mënuñu fajoo sànq dëgg naa Tamba dañu koy waaj a ah, inauguré sa dëkk ba j'espère que dina dinañ mais daal yéeme na parce que fukki junneeg ñaar ñetti téeméer loolu c'est un autre défi zëy tàggool tàggool tàggool tàggu téléspectateurs yi ñu doon seetaan yëpp di remercier bu baax complexe Sophia coiffure nekk Mamel aviation di leen wax à la semaine prochaine jërëjëf euh, sant nañu bu baax sunu boroom déggan nuy euh, ndokkel sunu xarit di sunu lépp ajaratu ay dong. ndeysaan ndeysaan. Euh, kenn ku ne xam liggéeyam ak taxawaayam. ak dimbal dëgg ak sama doom nag. Euh, Pape Massata Diak. macha allah ndax danoo dëgmal nag bisu maam Thierno Birahim daamal Daaru. ca Daaru Musti dëgg la macha allah. te Massata am ci waaru bari. dëgg la bu muy defal daamal Daaru yal na ko yàlla jàppale. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. ak nag ki nga xam ne kii du ko fàtte mukk muy Serigne Bassirou Diop nekk Touba. ndeysaan ak Dame loo nekk mm. Espagne. ndeysaan ak nag Marème Euh, Mendy. Hmm. bëgg Cheikh Ahmadou Fadel Mbacké. macha allah nekk ci Paris. macha allah euh, Anta Niang mi nga xam ne moom lay soxna Alaaji Saliou Ndione. Hmm. ak Fifi euh, di sama doom di sama xarit. waaye may ndokkeel bu baax ajaratu Leena Fall Diagne. Hmm. ak nag ki nga xam ne kii mooy sëykat bi. ajaratu Jaynaba na ba allah moo ko fàtte mu ko digal lii ñaanal moom la ah. Jaynaba yi. wallaay boobu damaa bëgg jigéen ju bëgg sëriñam. macha allah na ko yàlla jàppale bu baax di siyaare nag it bu baax euh, sama sëriñ xam nga duma ko fàtte mu ajaratu Awa Gaye mu soxna asfaalum Cheikh Ibrahima macha allah euh, di ko ñaanal nag jàmm bu baax a baax mm, mm, mm. Eh, di ñaan ak Aysatu mm. Kase madame Dioum macha allah ak Moustapha Sow macha allah Serigne si mbekk Mbacke Maane ak nag mm. généralu Maam Jaara dama bëgg lool muy sëñ Mbacke Maane dëgg la dëgg la sama mbokk lool lool sama xarit sama sëriñ ak nag Mouhamed ah, Niass ah nekk Porokhane Mouhamed Niass <laughs> mm. dooy baay Ibrahima ñas ca leew na ndeysaan ana Gayal nga xam ni mooy Buur Saalum di doomi ndey Alaaji Adi Wade <laughs> maa ngi koy ñaanal bu baax maam fili nag du moo ko fàtte soxna si àllaaji Ousmane Tanor Dieng sama docteur bu ñëwal bi ni Ndeye Marie macha allah foofu lay tëje yal na yàlla defal jàmm wallaay wallaay def toor mukk te yàlla jàppale amiin amiin àllaaji xanaa dañuy delluwaat rek taal sunu doom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 waaye mënoon na ma zoom parce que genre guy gi la ma defal benn guy daal la ma defal xam nga maa taxaw nag waaye daal guy daal la def allaaji gis nga jili création yu baax lay génn xale yi fi ñëwoon sànq nag allaaji suñu doom yooyu ah. waa SUPTEC ndeysaan institut supérieur de technologie nekk ca wetu police jëppal ñoom ñoo ñu seet si tey ma teg nuyoo bi nag ci loxo prési waa gis nga jili création nag li mu def ñu ngi koy zoom allaaji <laughs> fatubakàlla macha allah di nuyu nag euh, tamit waa salon Anna Diouf nekk zone B en face église ba ñoom Adja Abdou Diop nga xam ne ay poubelle rek fu mu nekk nii raw yi sew lañ ma def ma tas mu sóor bi wala ma bàyyi fàtte na waa Jëdda ah waa <laughs> ah, Jëdda euh, madame Diallo na fi congaan na fi congaan waaw ak borom këram du Diallo <laughs> ñoo ñoo neex a fekk màkk tubaarkala ñu gën leen fàtte <laughs> di leen jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla ci beneen émission wareef yàlla na suñu bi def dégg ak topp ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim jërë ngeen jëf Thank you